li ci ëpp sursis lañ lay def nga nga bàyyi mais jàpp nañ ko ci flagrant délit dem ba ci biir procureur bii doon wax sànq nga xam ne moo yées Serigne Bassirou Gueye c'est procureur bi moom dem ba ci biir daal di bind juge d'instruction ne bëggatuma nga yóbbu ko flagrant li dama bëgg nga ubbi instruction pour rek ñu mën koo téye juróomi weer juróom benn weer juróom ñaari weer loolu du yoon wax naa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 yeewi askan wi warul dem waaye la fekk ñu fexe ba dugalaat Benno Bokk Yaakaar te boobu jamono Benno Bokk Yaakaar ay parrainage ëpp na muy benn paritem am respecté wu ko looloo gën a garaaw ci li conseil constitutionnel def ces sept charges là est des criminels li ñu def est un crime loolu moo gën a garaaw que sax la fait que ñu ne ñun suñu liste titulaire national du dem kon dama bëgg ñu delloo ci xel yi ci loolu balaa ñu naan suñu liste nationale dafa war a bokk coow li yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar waruloon bokk ci élection bi parce que keneen ku mu doon listam doo bokk ci élection bi ñaata nit la ñu téye parce que nee nañu seen parrainage matul yoon dafa ne parenage bi bu manqué benn munoo dem bu ëppee benn munoo dem Benno Bokk Yaakaar ëppale benn depuis quand conseil constitutionnel nga xam ne c'est le juge de la conformité à la position naan la l'arrêté d'un ministre depuis quand le conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel c'est une honte c'est une honte ce que les, les, les, les la, magistrature est en train de faire dans ce pays et j'interpelle l'union des magistrats bu dee dese na leen lenn su dee dese na leen lenn ci dignité ak ci probité nañu jóg wax ci ñoom li ñuy def ñoom magistrat yi ci réew mi bu dee nag dañ ñoo bëgg a gëmloo ni justice amatul desetul dara lépp a ngi ci loxo Macky sal ñu xam ni on a un pouvoir amuñu judiciaire amuñu législatif pouvoir exécutif la ñu am boo xam ne ay juges yu koy jaamu la ay fonctionnaires yu koy jaamu la looloo fi des ci réew mi et donc ñetteel bi ma bëgg a wax mooy arrêté préfet bi préfet def dafa symboliser li ñu li ñu def suñu administration léegi li des ci administration le gouverneur laa bëgg wax sax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar ku ma xam bu baax la maag moom ñoo bokk promotion ENAM chaque cinq heures ñoo doon footballeur tere ENAM xam naa ni ku baax la waaye Alxasan gis nga àdduna yenn saa yi nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax moo gën nga nangu ñu associer sa tur tombe yu mel nii moom gouverneur Alassane Sall sama frère la je le connais xam naa nit ku baax la l'esprit noonu lañ ko doon wooye bi ñuy football l'esprit l'esprit ñu laa wàccee ba ci lii rafetul carrière amul lu ko war a jar lu dul ay carrière Macky Sall wax na Antoine Diome wax na et cetera que moom ci boppam ñu signé la loolu xam na ni Euh, article bi ñu wax yéen journalistes yi la jublu te pourtant yéen journalistes yi a ngi ni di couvrir suñu conférence de presse bu meeting amee di ngeen ñëw article bi amul benn rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période préélectorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw roñ kon moom Alxasan xam na ni liñ ko signaloo te wóor na ma sax dañoo bind rek na ko signal mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste réew mi bu koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk jublu ay réformes parce que justice bu nërmaloo ci réew rek dara desu fa lépp mun na nërmalu ci réew ba mu des justice te soo waxee nag ñu làqati waaye les institution judiciaire nangam les les plus grands ennemis de l' institution judiciaire sont dans la magistrature loolu mooy dëgg kon arrêté gouverneur bi c'est un arrêté illégal mënul servir de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk mooy menace de trouble à l'ordre public te saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa se mooy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque <coughs> peut-être que sax Macky moo leen di jox kaat ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba le def nañ fi manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ay ñu pare ramasse euh, mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo tax d'ailleurs li ma wax léegi gis ngeen procureur il faut euh, il faut yeewi askan wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey nañu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yur bi normal na ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ni manifestation bi insurrection la woon ana les les les les les les signes de l' insurrection kan la ñu xeexal fan la ñu dem est ce que dañoo déloger palais est ce que est ce ana ana signe insurrection loolu mu ñu jiñ nag on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre vous parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mun nga ko teg ci ci deru nit ñi dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ ne c'est des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yépp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay manifestation bi maintenir nañ ko duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est-ce que waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de duñ ci changer dara dinañ def suñu manifestation parce que nag li ma bëgg incha allah bokk li ma bëgg sénégalais yi xam gis nga li ñuy xeex nii du ay postes yu ñu bëgg fii amul kenn ku fi ku fi poste député ñi fi musa ñi fi toog ñëpp daanaka presque mus nañ nekk député ministre ak yeneen ak yeneen man mii di wax ak yéen bëgguma nekk député bi ñu waxee dama leen ne woon am naa mandat bu may gérer à Ziguinchor dama bëgg a wu ci loolu ñu xool nag ñu ñuy préparer élection présidentielle waxtaan moo indi ba ñu convaincre ma ne naa dugg su ma su ma nekkoon député it damay choisir diggante la ma war a def Ziguinchor ak député parce que man gëmuma cumul de fonction kon ñun député feesul suñu bët nekk nañu député ba tey ji cinq nekk naa ko député ñeneen ñëpp fii Déthié nekk na ko Aïda Mbodj nekk na ko Habib Sy euh, Khalifa Sall et cetera kon lan mooy poste député ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangulee Macky nañu xam ni c'est fini ci Sénégal nit ñu bëri dañuy woo naan Euh, moom bu leen ko topp ci loolu xam ngeen dekkale leen mbir mi et cetera looloo tax dix ans yi passé Macky Sall di def lu ko neex est-ce que mun nañu continuer accepter que Macky mooy tànn kan mooy dem élection élection législative yi ñuy dem benn ténor opposition du ci bokk est-ce que loolu xel mun na kon yéenay gis France élection législative Jean-Luc Mélenchon ma nga fa Marine Le Pen ma nga xalaatuñu élection législative France